tali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyantoo yéenekaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamal ñu lu jëm ci jàngoroy coronavirus ji ngir nag réewum Sénégal bañ mu law ci biir réew mi loole nag daan nay tax nguurug Sénégal jël ay dogal maanaam ministre de l'intérieur daan nay tëj mbooleem jumaa yeeg jàkka yi nga xam ne maanaam ñoo nekk ci réew mi journalu groupe promo consulting bi moo xëy di ñu ko xamal leneen loo xamante ni fekk nañ ko ci biir yéenekaay gi mooy ministre bi ñu dénk wàllu wér-gi-yaram ci réew mi di Abdoulaye Diouf Sarr niki démb nag nee na am na yeneen ñaari nit ñoo xam ne amee nañu jàngoroy coronavirus ji waaye tamit daan nay xibaar ne Sénégal maanaam faj nañ ñeneen ñett ñoo xamante ni amee woon nañ jàngoro ji maanaam mbir mi ba mu commencé ba léegi am na si juróomi nit ñoo xamante ni Sénégal faj nañ leen yéen a kaay gi délibération xëy na dikk si ñi nga xamante ni ñoo yor lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum faj jàngoro yi coronavirus ji ak ni nga xamante ni jamono ji moom lañ say góorgóorloo yéen a kaay gii di Vox Populi ñu fekk fa Aminata Touré mi nga xam ne maanaam moo jiite conseil économique social et environnemental moom soxna si la mu xamle nee na jamono ji jàngoro yi doy na waar genn xeetu doy waar xam ne Sénégal gi yëpp ñoo si war a bàyyi xel yéen a kaay gii de la mu ñu xamal lan ñu en tout cas li ambades daal soo moytuwulee maanaam na ñëpp toog seen kër la wax askan wi ndax jàngoro ji li muy faagaagal ci àdduna bi dafa bëri yéen a kaay gii di libération mu ñu xamal lan ñu ñi nga xam ne ñooy patronat bu Sénégal ana ñi leen doon laajte maanaam ñooñee ñëw nañ génn nañ lu toll ci benn ci ay milliards jox ko nag Abdoulaye Diouf mi ñu dénk lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum wér gi yaramu réew mi akub clinique boo xamante ni nag ñu fas yéene koo taxawal toll ci cinquante lii ak fukki lii show yéen tournant bu Sénégal maanaam ñoo fi jaar benn milliard la ñu génne yéen a kaay gi du l'observateur mu ñu xamal lan ñu jàngoroy coronavirus ji daan nay tax projet yu bari yoo xamante ni nguurug Sénégal naloon nañ ko maanaam jamono ji waxutuñ sax lu si jëm lu ci mel ni train express régional lu ci mel ni bus transit rapide maanaam BRT ak lu jëm ci stade olympique bi nga xam ne maanaam ñoo ngi ko doon waajal ci jam ñaajo jamono ji kenn waxatul seeni wax yéen kaay gi de las ak le témoin mu ñu xamal lan ñu nguurug Sénégal mbaadu dañoo gis lu leen jommal lu toll si juróom benn fukk ak ñeent ci ay milliards la gi ngir nag fas yéene jàmmarloo ak jàngoro ji di coronavirus yéene kaay gi de la turbine mu ñu xamal ñu xale yi nga xam ne ñoo nekk ci mbedd mi di lambar lambari loolee nag daan nay tax ñi nga xam ne ñooy société civile bi maanaam di sàkku nguurug Sénégal jël ci ay dogal yéene kaay gi de la quotidien ak réew mi quotidien mu ñu xamal naan ñu nguurug Sénégal jamono ji nag bu ñu waxante dëgg maanaam ñoo ngi jël si ni matukaay ndax am mboolem loo xamante ne ay frontière la nguurug Sénégal daan na koy tëj moo xam si jaww ji moo xam ci gi moo xam ci jéeri ji jamono ji nag li si des maanaam ñu xeex ak jàngoroy coronavirus ji sunu biir ndax yéenekaay ku ma jambal jaan gi nee na jamono ji nag maanaam daal dinay tëju yéenekaay gii di Vox Populi mu ñu xamal lan ñu gouverneur bu Ndakaaru daal dinay jël dogal tëj mboolem juma jàkk yi nga xam ne maanaam ñoo nekk ci Ndakaaru te képp koo xamante ni wàccoowoo ak loolee ay daan mën na la sa fekk yéenekaay gii du Source A mu ñu xamal lan ñu am na benn doomu réewum Sénégal boo xam ne ca France la nekk waaye nag ci Thiès la fekk baax moom dafa coronavirus bi def na ay dégâts yu bëri ci biir réewum Sénégal maanaam ay njombe lu jëm ci mbirum économie réew mi jamono ji mën na ñoo wax ne maanaam dafa daal di nërmeelu yéen a kaay gii di Vox Populi mu xëy di ñu xibaar lu na nag préfet bu ndaam maanaam ca Touba daal nay wax ne bëri na ay muudu muudu yoo xam ne yoonu suufe la ñuy jaar di dugg Touba te loolee giraawaali la loolee njombe la Mamadou Oumar Ndiaye bu la témoin xëy jël xalimaam ne nag jamono ji li nga xam ne moo jot sëkk maanaam ñoo ubbi suñuy bët maanaam vigilant ba pare nag di aaru waaye nag bi moom mën naa ñàkk maanaam nekk di jayax-jayaxi loolee a ñu Cees mu ñu xamal laan ñu Khady Diouf mi nga xamante ni moom la ñu doon wax ne dañu ko rey te ba ñu koy rey dafa ko defaloon ab test kooke nag police daan na koy diglu yéen a kaay réew mi ko di mu xëy di ñu xibaar lu doy waar a doy waar ci corniche Ndakaaru koo xamante maanaam ay atam jegee na ñaar fukki at kooke nag dañoo fekk ñu daal di koy rey daal di koy yeew journal bii di Stades mu ñu xamal laan ñu Ismaïla Sarr ca Angleterre dafa mujjoon firéeku tàmbalee toj championnat bu Angleterre guerre coronavirus bi daan na koy stoppé